salaamaaleykum salaamaaleykum mbokk internet yi ñu ngi leen di nuyu kullum di safoo ñëpp di ziar ñëpp di jox ñëpp seen wàccuwaay waaw di wax euh, baatu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ndax euh, njabootu làmb dañoo am aw tiis ndax boo tiis nag bu dal njabootu làmb muy kan muy ñaari xale di nekkoon si làmb làmb yaakaaroon leen seen famille yaakaaroon leen seen supporters yaakaaroon leen muy ku ñuy wax Zil Baldé Junior at Boy Lo ñu leen di ñaanal suñu borom xaraleen àjjana yàlla na suuf yoo seen kaw liñ fi bàyyi yàlla suñu borom may leen xoro muñ bañ leen di ñaanal fuñ toll suñ papa Gaston tamit waajuram bi génn àdduna ñu koy ñaanal moom tamit suñu borom xaare ko si àjjana firdawsi ndax di wax ñu ñëpp si njabootu làmbu lañ bokk ndax uh, sotti sek def si rek la kon bu ñu amee tiis dañ koy bokk ñoom rek waaw di dellu nag di nuyuwaat nag njabootu làmb ñëpp tey jii nag ñu ngi fii fan dakaar seet si kan xale di yaakaar di espoir si gox bi mu dëkk espoir si dëkk bu mu jóge waaw seen émission seeti mbër na ñëw seet si ko waaw duñ ko duñ ko wax mooy kan dañ koy bàyyi mu nuyoo mbër nuyu naa waaw fay naa la maa leen di ziare di leen bëggee di leen wax naka journée bi yéen a ngi am jàmm ziar naa leen bu baax waaw yaa ngi am jàmm maa ngi bëggee sant ni alhamdulillah bëgg xam kii mooy kan waaw kii wax moom mooy Boy Diobassé la rek mbër la quoi mbër bu ndaw nii rek buy jéem nekk ci yoon te war nañu màgg ni ñëpp te ñoo ci yoon bi incha allah fa yéene wuñ ko bàyyi parce que yàlla baax na quoi. Boy Diobass la mooy Boy Diobass. waaw Boy Diobass dëkk la rek région de Thiès xam nga fépp ci Diobass la bokk waaw gars yi ñoo xool ba mu neex leen ma dem bëre ñëw ñu tuddee ma ko waaw muy jo Boy Diobass mooy wuyoo turu dëgg quoi. Boy Diobass dafa màgg bëre wala dafa am nijaay yuy bëre wala dafa am waajur buy bëre wala lan la. waaw ki jur sama yaay Moussa Doole bu Kiñaa bu moo jur sama yaay. côté Ndaayaan ay Guéréo ay Caafara ay Sorox yooyu yëpp képp ku fay sookee ko xam nga ay cigi ñëpp xam nañ ne ki jur sama yaay mbër la woon Moussa Doole mu kiñaa bu moo jur sama yaay dama laal rek feeñ quoi. dama laal rek feeñ boo jëbaas fan la déparé si Mbapat Ndakaaru la déparé wala si àll bi la déparé. maa ngi déparé dëkk bu ñuy wax Sipan. Sipan waaw làmb cosaan quoi comme buñ béyee ba nawet bi jeex nii. am na ñu benn garabu penc boo xam ne dañ koy defal affaireu séeréer day am làmb day am sabar ma doon fa dem di foo xam nga chaque année ma bëree fa ñaari at mësuma laal suuf te xaw ma sax nu ñuy bëre moo tax ma ne la dama laal rek feeñ léegi troisième année ba ñu tëgg fa drapeau ma dem jël ko loolu la ma virus bi duggee nii ba tey jii. final fa kan. non final maa ngi benn mbër bu ñuy wax bu laal sama grand frère maa koy bëggee ah. bu laal mais instant yi bàyyi na moo ngi ci joobam quoi mais instant yi tout tànk la ñu woon ay 2011 ans laa njëkk a jël drapeau. 2011 njëkk jël drapo nekk lu tuuti yaaguma jóge daaraan waaw. nga jóge nag virus bi dugg la. nga su commencé di ko fontu. nga jóge Jobaas ñëw si yéen dëkk di fa jël tournoi di fa compétir. waaw waaw maay dugg jilaas jilaas dama fay jël làmb ay ñoojoor waaw dama fay finalu ay nag. di dugg ay côté Petite Côte bi ay Guéréw ay Ndaayaan ay Kiñaabu ay Sange ay Kisan dëkk yooyu daal yu couvrir côté boobu di dem ba ay côté ñaaxaar yëpp dama fay dugg làmb di bëre quoi. Mhm. te ji yi nekk si li simple maanaam tanoor yi nekk si li simple te ji gis ñoo xam ne laala nga ak ñoom ñu daan la ñii nga daan leen balaa ñuy ñëw si lit avec frappe bi. non lit simple instant yi nii gars yi fi nekk ci kaw man moom moom yàlla Cheikh Tidiane daal laa Cheikh Tidiane ñaa laa mos a final moom ñoo joor faatu faatu foofu moom xam naa ne doo a fa daal moom daal laa mos a final ak moom mais yeneen gars yëpp xam nga newuñu ci kaw quoi Cheikh Tidiane daal laa xam ne mos naa final ak moom lese wala lour poids lourd man mosuma bëre lese man dama màggee jar ban année nga final ak Cheikh Tidiane ñaa moom ay 2000 2017 2018 jamono jooju Cheikh poids lese la non poids lourd foofu poids lourd bi benn yoon ñoo fa nekk poids lourd mooy ñoom drapeau Omar Diouane ñoom ñëpp ñoo fa nekk poids te ëpp ñu moo tax ma ñëw takk poids lourd. waaw compétir waaw wut xam-xam wut doole xam nga yokk affaire yi quoi waaw noonu la woon quoi. jóge fa ne ñëw si daj dëpp gi mbàccum gerte gi ñëw si lutte avec frappe ndax boo nee lutte avec frappe moom ñëpp xam nañu mbàccum gerte la moom amul ruq bu sedd. sa premier combat arène. noo ko waajee ak kan nga njëkk a bëreel. man sama <laughs> premier combat arrêt daf ma defi ba léegi maa ngi ko bëreeg Balla Tampico affaire bu garaaw. Balla Tampico benn Balla Tampico bëreetul sax <laughs> gisatu ma moom laa njëkk a bëreel mu trompé ma. te saa yooyu barki arxuraan li may daj ci làmb amul mbër bu koy daj. di jël ay daraapo comme dof parce que balaa may dugg ci arène bi nii laal naa di set daraapo waaw gars yi may déglu xam ma xam nañ bu baax li may wax di tegale benn guddi di jël ñaari drapeau barki alxuraan mais xam nga rek ma ñëw jour boobu suñu waa dëkk ñëpp niñ ma ñëwee supporté boobu combat boobu mosuñ ma ko ñëw supporté ba ni may wax ak yow. rajo waas. billaay wallaay boobu. arrondissement bi yëpp. 42 places yi 3 lañ fa jëli woon. drapeau yi mel ni waay yow. port fees del ma ñëw waa ji trompé ma trompé boo xam ne kenn xamul nu mu demee quoi. première défaite première défaite après ma jóge fa gars yi ne ma damay retourner Thiès sama papa Sidi Diakhaté di ma tëggal ay komba ma assoné fa cinq combat cinq victoire ci laa daan ay ñoom booy jaxaaw yëpp bi nga jógee si bala bi ko danga delluwaat Thiès dama nga bëre fa kan ma bëre Lion d'or dama ñëw cap ñu jox ma booy jaxaaw fekk kenn ñemewu ko ma benn bi bëre woon ak Baye <laughs> booy jaaxaw maa ko fa njëga daan après ñu jox ma ay lion d'or ay ñoom booy ndooy ay Joal mbin maag ñooñu ak karati des na de xaw ma booy fay xaw ma lan booyee moom mooy loolu mais après ma jógee foofu en sonné cinq victoire ci laa dugaatee ñu jox ma mortal bu benn barak. mortal benn barak. ma dugaat Assane Ndiaye dugal ma Dakar ma daan mortal bu benn barak jóge ci mortal après. bi ngay jël ma mortal xam nga kuy ma mortal. mortal man. ba ni ma toll ni amul mbër bu may maayen pour man instant boo ma joxoon Balla Gaye sax ma tenir ko. parce que ma mar jëm fan. ma jóge ci mortala am jawde ma perte bu Balla Gaye waaw parce que instant yooyu dama amoon problème adversaire parce que gars yi kuñ ma jox Assane Ndiaye mën na ma seede bu desee deux semaines mu yàqu sa combat noonu après ci laa jël jaw de xam nga joxu ma ko sax cër bi ma koy jox mais làmb noonu la demee parce que ba ma jógee ci moom ci laa xam lan mooy làmb après c'est deuxième défaite. ma marqué sama deuxième défaite après ma jël kan euh, bëri na de après ma jël kii na la tudd Zia Buram daan joge ci Zia Buram daan bërewaat ak kanati des na de caatu bawal bëreg Fourière. Fourière bu Grand Yoff jóge ci Fourière bëreg Ñang Mbaalo joge Ñang Mbaalo après bëreg kii nii Demba Thiaw bu Yoff quoi. nga deux défaites ak benn sans verdict. bi yaakaar la la mooy combat bi Assane Ndiaye tegoon fii diggante combat kii nan la tudd Valdor ak kii Maam Góor Diouf. Valdor Maam Góor Diouf waaw jour boobu boo jobaas li nga si arène bi mu lutte avec frappe seen émission seeti mbër tey ñëw seet si la tey jii boo jobaas dafa xaw a si làmb wala lan non gars ñooy moytu rek comme ni nga wax xam nga mbëru dëkk moom gars yi duñ la jox sa gëdd biñ la war a jox. bañ lay moytu. kan man i tollu man nen mais dama tàng jër séeréer saafen bu dëgër laa lay tegal barki yàlla. ma bàyyi nga ñibbi ñëwaat. waaw man xam nga man séeréer saafen laa. baal ma bàyyi nga ñibbi ñëwaat. waaw mi kañi mbokkaa ci ngo saafi ci tuux ku kenn du booy joobaas di ki dana wooyo xeewa rek waaw daf tuux da saafi quoi da raak di dara ini dane prouver lambat lu dul nu du woy da danik nga vinoodu parce que daf dakubu zavi da mindi dara dana jeeme rek mais dami kiimi du ko xam nga du farof daf xel du baat daf ambo parce que ambo heng daf wa manki torop torop torop wa manki torop parce que daf da mindi dara daal mais da tux da edu du averti quoi waaw da edu du averti bu baax a baax waaw bi kisanna bi zange bi birbira bi ngolvañe bi njuungaan mbomboy banja sinja xam nga na bi jas mbomboy noto jooɓa ngolvañe ɓo tuhwawi ɗu tuh ɗu tuh daɓi ɓeeɗuk ɗu daɓi ɓe keeɗaɓi fans clubing ba baat daf ñaan ɓi wa thies grand standing mandia e sallangari bourgueɗe waw koko moom dañi jaafa sama booy ñoom moussa ñeex <laughs> moussa ñeex jaabira nee na bu ma la ko wax mooy mooy loolu yaa ngi dégg waa ci si sama fans club du Diom xam nga ay grand laay prési ay Moussa Ndaw Sange ay ñoom Papuy ñoom Maxi Décor war nga ko xam boo ñoom Elzo Afia Décor waa Joobaas booy waa yoo ko coow bi ñoom Papuy booy yëpp waaw ak suñu benn yaay ju nekk Liban quoi Tata Zeynab waaw ak yaa aw aw puy ñoom ñëpp dañuy jàpp ci affaire yi ay site internet yi comme yow ay Joobaas info ay Antoine Antoine Ciss yaa ngi dégg te mu nekk rajo Sinja bi ay Xelting info yooyu yëpp dañuy jàpp ci affaire yi waaw di béggee suñu gars yi nekk fii 93 sama booy bi ñoom Bilo Ama xam nga yaa ma gën a xam ak Ousmane Fall suñu patron bi parce que nee nañu fecc liir bu neexee ndey jaatee ca mbëgg man lépp lu ma ñeme def ci làmb ginnaaw yàlla ak yonante bi moom la yaa ngi dégg moom moom dafa may jàppale ba mu mat sëkk te doxawu ci waxu ci maa ngi koy ñaanal lu mu bëgg yàlla may ko loolu noonu waa Mourtani sama ñoom yaay ñoom ñëpp waa 93 xam nga ñoom ñëpp waa Salle fitness club ñoom Sidaati suñu gaay mafia bi yëpp waaw waa port ñoom Ali xam nga ñoom xaadim ñoom zal ndengeleer ñoo ñëpp waa lagon ñoom yaay jaara xam nga ñoom njool ñoom biram gaay yëpp ñoom yoro jaaj ñoom ibu kum ñoom maam gaay yëpp maa ngi leen di béggee ku lim da ngay parce que ñooñu moom ñoo nee sama ginnaaw quoi franchement parler waaw parce que ñoom dañuy def lépp lu ñu man ngir ñun ko quoi pour ñu réussir yaa ngi dégg moo tax nag bu ñu tolloo yenn dimension yi dañ leen di fàttaliku parce que ñun ay nit kese la ñu quoi ak Salakan te mu nekk Top FM Salakan sista Sala mu nekk Top Top FM ñoom ñëpp dañ ciy jàpp waa Semkeej ñoom ñëpp waaw ñooñu moom xam nga samay gain lañu ñu mention spéciale quoi. waaye uh-huh. ngeen dégg émission seeti mbër tey ngeen dégg li Boy Diobass wax di xale di yaakaar ngeen gis fi mu déparé ba tey fi mu egg si ngeen di lim fi jot a def si làmb bari def na treize combats. dix victoires deux défaites benn sans verdict waaw di xale di yaakaar tamit mu nga indi ba ne ko ñibbil ñëwaat mu nuyu waa Jobaas waa Sinja waa Morolan tund googu yëpp mu nuyu leen muy région de Thiès gi ñu leen mu fay nuyu suma benn papa bu fa nekk ñu koy wax Pulum Fay waaw mi ngi dëkk Jobaas maa ko nuyu bu baax kooku suma papa la suma lépp la di ko ñaanal fan ba gudd at wér gu yaram muy Père Fay di ko wax Pulum Fay di ko ziar bu baax a baax ba Jobaas tey jii ñun ñëw nag. am na adversaire yoo xam ne nag tey jii war ngaa mën a laaleeg ñoom nag tey jii ñoo xam ne ñu ngi sa xel te war ngaa mën a bëreeg ñoom mm-hmm. waaw baax na ba tey mën na nekk parce que Kulifay 2 bu amul combat nañ ma ko jox Kulifay 2 am na combat moom am na combat nañ ma jox take non moom taxe taxe taxe damaa bëgg a laaj xanaa sa gars yi dégguñu bi ngay tëkku taxe wala kat man man nee naa la amul mbër boo may jox ma ci am xel ñaar quoi na jàmm am rek nañ ma jox takke yaa ngi dégg ma ceebu jënal ko mu jeex parce que xam naa lu mu mëne gis naa lu mu mëne bu dul take am ne ñu nekk si làmb ñoo xam ne tey war nga mën a laal ak ñoom bu dul take booy fii nii booy yow ya ñan booy nga war a xalaat ne dinañ ma jël fii nii sax ci la yaay bëri de man ne wax dëgg man xam man bëriwu ma yaay bëri yaa xam sa adversaire non man dama xam ne booy duñ ma jël loolu moom lu ma wër la parce que day jaw dama jafe wutal adversaire quoi tollu ma ni gars tamit mais dama jafe wutal adversaire adversaire dama jafe wutal adversaire moo tax sama làmb day xaw a. tey jii comme ni nga ne par exemple taqe am na ñeneen ñoo xam ne tam ñu ngi si yeneen écurie sa xel am naa de pour bëre ak ñoom ñooñu tam dañoo naqaree wutal adversaire. waaw comme comme nan kan noonu waaw moom moo xool. Kalmu Ndour moom ñëpp xam nañu dafa naqaree wutal adversaire. waaw gannaaw mbañ ñëpp xam nañu dafa naqaree wutal adversaire waaw. baax na ba tey rek bu ñëwee rek ñu affronté ko ñun amuñu lenn lu ñuy résister ci làmb. na taxaw dëggal boobu man moom joo mooy fi pour fépp waaw pour mbër yëpp bu ñëwee it ñu amul parole. aussi Calme Ndour. Grand Mbagnick. déggoo amuma ku ma ciy bàyyi man làmba mooy sama métier yaa ngi dégg ginnaaw job bu may def làmba la ma nit ñi xamee man duma ma ci reculer kenn avance bu ñëw ma lekk ko ba ci seen buntu kër nice. parce que buntu kër ñoom Grand Mbagnick. nice laa lay tegal nii nga daan ma leen. Grand mi ngi lay dégg ndax Grand bañ a moom dafa abonné SBT waxal Grand mi ngi lay dégg Grand kan mu ndur mi ngi lay dégg. Grand sa buntu nice booy muy àndal xamante nañ bu baax yaa ngi dégg te dañuy ñamante ci àll bi mais moom bu ñëwee nice. <laughs> ngeen dégg boo jabaas li mu wax nee na wala kalmu ndur man li kii bi ñëpp bàyyi moom moom la laaj muy kan muy Grand Mbagnick ko xam-xam ne ndaanaan la moom ndaanaanu boppam la mais man sama ndaanaanu bopp la yaa ngi dégg moom lu muy bëre daanu ma. fan nga wékk li grand di bëre daanu la. na combat bi taxaw nga xool. ah da ngay mos a laale si àll bi ñaar suñu laale mais dama xam ne bërëm daanu ma. waaw mën na yëngal nii nag champion la mais man. la amel bor ah, bu yëgul amelu ma benn bër. yaa ngi dégg mais làmb bu neex la bu ko jëlee day neex. budul grand budul grand bañ budul taxe am na ñeneen xale yu fi yoo xam say morom lañ ñu ngi pourvues. booy waaw Gakou 2 amul combat bu dee Gakou 2 amul combat jox ma ay caatu waalo ma dugg foofu. te diggante Gakou 2 jaadu na jaadu na diggante caatu waalo tamit jaadu na. Mm-hmm. waaw boobu baax na xam nga man duma sama bopp newul ci ay cité mbër nii quoi man sama rêve mooy ngeen joxoon ma Malick Niang man moo ne woon sama rêve quoi. Malick Niang mi mi ngay jàpp. def ko moosu fobee rek kaay duñ leen nii ngeen ne Malick Niang yéen booy non fa la newoon newatu fa tànk ba mu ñu taxawoo moo ñaaw yaa ngi dégg ma combat passé dama gis nu muy dawaleeg booy. tànk ba la leen taxaw. parce que daf ñuy atta ñaakal te ñun ñoo ko téye ba mu toll noonu lañ ko jàngaloon dañu fi tey la fi gën a ne moo tax buñ ma ko joxe ma ceebu jënal ko waxal ma ko loolu. moom dama taabet loolu. <laughs> Malick ñaa may ma sens comme nangu woo ñu ci kaw mayal booy sens amul problème. yéen maa ngi koy soog a dégg nag. fii rek lay leere si SBT Média nit nekk si gétt gi déplacé wu si beneen gétt nga ne nañ ma ko aal mais nu mu joobeek ñun moo rafetut parce que waroo jógee ci ñun ba pare di ñu atte ñaakale ci ay combat yu ndaw yii nii mag boo amee dara ci làmb yaa ko may sa bopp du dëgg mais ñun tamit bu ñu joxul cër jooju noonu làmb ñun dañuy làmb na ñëw ñu may ko sens bu mënul am komba fa la na ñëw ñun ñoo ngi ci ay victoire ñu may ko dugg yoof laaj fa ab booyam wëlbatiku na nañ la ko àll. nañ ma ko jox ma ceebu jënal man la am combat na ma jël man la am combat na ma jël. Malick Niang si ay gauche droite am rek. waaw yow gauche droite am xam naa fu muy jógee suñu suñu kanam la jógee gauche droite yooyu buñ jëlee du gauche du jóg droite du jóg waaw. SBT lay leere fépp. seen ah, émission seeti mbër sama gaay fi lay leere ah, fépp dégg ngeen boo jawaas li mu wax nee na digganteem ak taxe nee na digganteem ak. Malick ñaa may def pareeguma mu ne digganteem at gàkku deux non man booy jabaas dama yaakaar ne li nga ndékkee moo rëy sa waay man mbëru dëkk laa man aw ma benn lu may rekileel doomu aadama ah, léegi ñoom ñu nga tëkk fi ay mbëru lan la non ñooñu mbëru gox la ñu man joobaas xam nga ñaata village la 67 village am na pël am na bambara am na séeréer siin am na séeréer saafen am na tuglóor façon làkk yëpp ñooy fa waa Sindia sama grand Samba maa ngi koy béggee bu baax yaa ngi dégg ñoom ñëpp waa yow mbëru gox ay benn koñ man mbëru dëkk la Malick Niang mbëru dëkk la. waaye ban dëkk Yoff di dëkk. du dëkk ñu ne la fukki penc yi ak ñaar nga du dëkk. fukki penc yi ak man xool man séeréer saafen pire lañu te lebu ci ñun lañ soso séeréer saafen yaa ngi dégg moo tax man ndëpp waa Yoff xam naa loolu. <laughs> nga boo jëwaas fi ñu toll nii xelam yëpp tegu ko si lu si Malick Niang pour laaleeg Malick ñaa ndax Malick Niang nekk xale boo xam ne xale bu làmb amoon si moom yaakaar la waaw mu def fi onze combat benn défaite la am tey ji làmb kaa fàtte dafa jot promoteur yi gersuwaat ko ndax boo jëwaas lancé na benn message pour promoteur yi dem xooliwaat Malick Niang waaw seen émission seeti mbër fii lépp di leere gàkku deux nga dégg pareel xam ne boo jëwaas nee sa diggante ak moom kon ma bëgg a laaj lu tax nga nga dugg géej waaye na gàkku dë non dama dama gis ne amul combat te moom mooy bëre di daan maak moom ñoo yem day bëre di daan du dem man di bëre di daan du ma dem nañ tase ñun ñaar ku kenn daan dem gàkku di bëre di daan di dem yow nga ne gàkku bëreewul daan di dem ah, bu gàkku ba muy bëre ñoom tonnerre de boobu ñun amuñu licence u làmb ba léegi da ngaa wax gàkku moo ci làmb ci at ci lépp waa yow ci lépp moo ma mag ci làmb ma ma ci gën ma baax bopp ci làmb mais maa ko ëpp doole ci làmb. doole gàkku dama ko liggéey dama ko gën a feete xale. moom tëddul di nelaw de. waaw yow man maa tëdd di nelaw man matin midi soir je job damay liggéey man matin midi soir je job <laughs> waaye yow léegi xool di bëggee sama doomu ndey lak junior ah. mooy waa jële taxaw na le ay ñoom tapalapa ñoom teli yokkal coow ñoom brise de mer waa fuuta añam ledu be yaa ma gën a xam ñoom kamara ñoom ñëpp xam nga dañuy jàpp waa divancé bi fii nii 93 boo yëpp mafia bi dañuy jàpp ci affaire bi su ma amee combat day mel ni ñu bokkal ndey baay la dañuy bàyyi lépp ñu ñëw jàpp ci affaire bi xam nga ñoom nag waaw na leen yàlla defal jàmm quoi yaa ngi dégg mais daal bu ñëwee ma may ko sens parce que ci defet la jóge yow nga jóge si ay victoire ah léegi pourquoi nga ne gàkku deux bu ñëwee ma may ko sens mel ni gàkku dee moom dalaa ñaan sens. no ñaanu ma sens mais dama xam ne instant yii nii bu ma jëlul man kan lay jël bu ma jëlul moom kan lay jël na ñëw ma may ko sens. waaw maa sant sama papa nag di sant sama yaay bu baax di gërëm sama tante waa Mbeda Fass ñoom ñëpp maa leen di bége yaa ngi dégg di bége suñu waa kër nag waa kaan Bil maa leen di bége. gàkku des defet la jóge kan la mujjee bëre Petit Niang non moo daan. waaw ah, dafa jóge ci victoire ma jóge ci victoire <laughs> na ma jël loolu yëpp amul kii mais waa waañ ba waa waañ ba dëgg ba dama fa am commission waa waañ ba ñooñu su ma amee combat lépp lu ñu am dañuy ñëw andi teg ñooy togg añi ci seen xaalis gratuite waaw suñu yaay aminoo ñoom fat dem xam nga ay ñoom rox seen ñoom daba jaañ ay ñoom ndey caba ñoom am ambaaw ñoom kodu ñoom ñëpp waaw dañuy jàpp ci affaire yi waaw mu neex ay ñoom yaay yëbu ñoom ñëpp waaw dañuy jàpp ci affaire yi sama yaay aminoo moo délégué affaire yi sama papa Babacar Thiandou moo ma yar ba ni ma tool nii sama carrière lépp moom la waaw maa ngi koy sant bu baax suñu papa Mot Sis Demba Jon ñoom ñëpp ñoo leen di sant bu baax waaw ay ñoom Modou Diom si pan waa sama papa Déji Diop Paalam Rock Paalam Cooyaan ñoom ñëpp waaw dañuy jàpp ci affaire yi bu baax te duñ ci boole wax waaw. mos laa fekk esaat ne boo jëwaas fan nga jëm nga ne ma kóol na ñëw ñu bëri maanaam yow kóol dafa am la amel wala. non kóol amelu ma dara mais dama bëre dañu tase Adrien Senghor. yaa ngi dégg ma bëre maay bëre kii waaye oh benn mbëru simple te mu bëre woon ak amoon combat ak Mamadi mu yàqu mu jëwu ñu bëre sax nan la tudd waaye. arobas arobas nax ma daan ma gis vidéo bi mu koy manifester. ñu tase ci benn groupe ma gis mu dugal affaire bi xam nga comme dugg naa mu dugal affaire yi man duma ma débat loolu man suma ma la namalee dara dama la koy wax mu dugal vidéo bi pourtant suñu booy bi bu muy coppati tànkam booy Diouf barki démb la rek video bi mooy ñun dañ ko denc mais joobewuñu noonu quoi moom bu ñëwee daal nag ñëw ma may ko sens yaa ngi dégg mënul am combat na ñëw ma may ko sens. ñëw nga may ko sens. waaw ngeen dégg li boo jobaas wax seen émission seeti mbër. nee na kóol na may ko sens ma kóol nag yaa ngi dégg. li boo jëbaas boo jëbaas sa kàddu gu mujj looy tàggatoo at ban message ngay lancé si CNG at ban message ngay lancé si promoteur yi at ban message ngay lancé si mbër yu ndaw yi waaw mbër bu ndaw moom dafa metti ni ko gars di waxee parce que boo tollul ni ñenn ñi amoo yenn may-may yi da ngay sonn ci àdduna mais xam nga lan mooy tax nga réussir gëm sa bopp gëm sa bopp mënta paase da ngay xëy di dem di compétir di entraîner di xaar yàlla gëm see bopp bi dem wuti métier ngay liggéey parce que boo gisee ñu naan làmb dafa métti bañ ak joob la parce que da ngay bëgg a toog nga dem entraîner ñëw yor sa doole bañ a dem liggéey nga naan da ngay xaar nit loolu bokk na ci li gën a yàq làmb jamono jii nii parce que nit ki boo entraîné ba am noonu toll même bu fekkee da nga am combat war nga mën a yëngatu nga dem ami leneen ak cas de Alioune nag xam nga suñu papa la suñu lépp la parce que mosuñu sekk ak moom lu ñaaw man damay bëre xam nga nañu xool nu ñu rafetee rek. Ah, dañ la dagg. non dañ may dagg dañ may dagg sama première combat man bi may dugg esaat suuf si tasuñu ko te dagg nañ ma quinze mille 15000 mille lañ ma fayoon esaat ngor bi may dugg esaat tasuñu suuf si dagg nañ ma mille francs te cent mille lañ ma fayoon. kon nag xam nga moom daf ñuy dagg di dagg ñëpp mais nañu xool nu mu rafetee parce que dëkk moom buy dox ñëpp dañuy booloo nekk benn. mais ku ñëpp tufli da ngay tooy bu nit ñi demee ba xool leen ne yow ñoo la faloon nga nekk fi mu dem ba ñu doyal ci yow da ngay jël sa bagage ndànk nga dem xam nga nangu li yàlla dogal aduna moo demee noonu waaw di ñaan nag mbas mi fi nekk sonnal nit ñi xam nga dagg suñu yi gaan tere nit ñi dund li ñu war a dund xam nga ñi ñaan yàlla mu jëlee ko fi yóbbu ko fa mu jóge yaa ngi dégg loolu moom instant yi ñoo ngi koy ñaan Zil Balde ñoo ngi koy jaale mbookam yi ak booyloo parce que ñun ñëpp ay mbër lañu kenn xamul ëllëg nooy mujjee te kenn yéenewul sa bopp la dal ñu mu dal la yaa ngi dégg nit ak yéenam yàlla ak dogalam aduna mooy doxee noonu mais ñoo leen di ñaanal fa ñu jëm yàlla gënal leen fi ñu jóge bi jaay Seydina Mohamed waaw di bégeew ñëpp waaw ñoom tapalapa saa joobaas ay ñoom caatu joobaas boo yëpp ay ñoom bukki juuf waaw ñoom ñëpp waaw parce que foofu noonu fi ma dëkk dafa am ay boo yoo xam ne ñooy sama ginnaaw ñooñu laay lim noonu waaw amul problème daal ñun daal ñooy nii xam nga wasalaam. waaw wasalaam la moom mooy boo jobaas di xale di yaakaar bàyyi ko région de Thiès ñëw nekk écurie Ndakaaru dégg lim fi fi mu déparé ba fi mu yegg si tey ndax champion bu toll ni moom la na ko promoteur yi gersu ndax ku def 13 combats 2 défaites benn machine def 10 victoire nga gis xale yi mu fi bëri at xale yi mu tamit jaadu na làmb boole na lañ ñoom ay Malick ñaan na ko may chance jaadu na taxe jaadu na ba si gàkku 2 jaadu na xale yooyu mu lim yëpp jaadu ba si ko diggante a kool di nekk tamit jaadu na di nga ko ziar baax di ko jox wàccuwaayam si oyof bi mu oyof ba tax tey ñu ñëw waxtaan moom si làmb émission seeti mbër rawatina nag di bëggee nag borom la 19 kenn la kooku kenn la si man muy borom le 19 kenn la si man muy kan muy borom ñaari galon yi kooku dama koy bàyyeeg suñu borom mu dund lu bari doole suñu borom defal ko tawféex ak taysiir waaw mu nekk borom ñaari galon yi nekk borom le 19 mu ko ñaanal mu dund lu bari doole bari doole bari doole bari doole muy borom ñaari waaw <laughs> borom le 19 mu ngi noonu waaw di rawatina le bi ngeen papi kenn du moom papi su ma nitu bopp la di ko ziar bu baax a baax di jox wàcc waayam bu wér a di bëgg tamit kulum kuy safoo Idrissa maa ngi lay bu baax di jox sa wàccuwaay bu wér Papino Sok nag bi ñeen la si man pappinoo Sok mi ngi nekk benn baraak fan tali bi xonk soo jàddee jëm àll ba ñaax rek fa la nekk moom Papino Sok ay xale la gëm seen bopp lu ma abiyee kaw ba suuf ñoom la ay xale lañ di leen wax góorgóorlu leen rek waa Papino Sok waaw ñooñu dama leen di ñaanal fan bu gudd ak wér gu yaram waa Papino Sok ñëpp ñëpp bàyyi ma kenn ñi fa nekk di liggéey ñëpp bëggee naa rawatina waa kër Baye électronique nag bëggee naa leen bu baax a baax di leen ziar dañ jox seen wàcc waay waaye borom la 19 kenn du moom dundal lu bëri doole borom lu 19 dundal lu bëri doole ni ngay fêté sa anniversaire neex na trop borom ñaari galon yi dundal lu bëri doole bëri doole foo defee dig dajee beneen émission ak beneen champion seen émission seeti mbor fii si SBT Média rek kese dong lay doon